New nuyu mbokki déglukat yi ak seetaan Sahel Entertainment TV ñu ngi fi si tesitu football club fi moy santia Tesito bi ñu ngi leen dalal ma ngi tuda Mamoudou Kone way ñu ma oyee ma coach ma waaw waaw Tesito football club ñu ngi doré si suñ magam suñ magni, ñi suñ maga magni ñi tour tur bi turutoon tesitu Yodos Laturon in 88, 89, uh, 93, 94, you change Turbi. Today called Tesitu. Non la Tesitu Soso. 93, 94. Wow. waaw jamono jooju nag mënu moon a fàttaliku game si waaye xamoon naa ne nawetaan bi bëri wutoon teams léegi léegi dañ dee ñëw invite pour nga mun a bokk si lifin bi léegi léegi nga play benn game qualify waaw waaw waaw bobu len play wuñ game su bëri na suma game la wala ñaari game fala affaire yi amoon suñ ma gaa play non len duga ci si nawetaan bi non bi mu tesito wàccoon na 1995 benn yoon after lolu bi ñu 2002 2003 season wacha tout be yabi fo las waaw non la tesito 2018. Mm-hmm. dëgg la te la, di ne play te da nga dee gis ne team bi players yi ñu mun a final Why always daf dee am loo xam ne suñ àggee quarter final rek pression daf dee ñëw si players yi loolu kos timbi cost nyarel. Bena yon reglen ñaareel dem semi final si lu muna li ma memori. a bi soo ñëwee xool team bi da nga dee gis ne fii koñi football la ñëpp xam nañ loolu leen dafa bëri players yi produce waaye da nga dee gis ne su ñëwee nawetaan in times nawetaan rek pour achieve rek daf dee nekk problème waaye ñi ngi liggéey pour loolu leen pour gën a wokkoon dat pour am dara commune nawetaan yi ñëw nii waaw te surtout waaw te surtout lu mel ni mbal Fodé jaar na fi Masta Jara ndem si yàlla Seydou Koli Bala Sarr ñoom Umar kii ñu jaar nañ fi ñom ndem si yàlla Babacar Diop ñoom yëpp jaar nañ fi waaw ñom Moussa Sila di likes of Moussa Sila tamit jaar nañ fi parce momit moom bedd bi sonal on stand ak ñeneen na ñeneen na ñeneen ñoo xamne ñi ngi tukki ñoom Aliou Conté ñoom yëpp jaar nañ fi ñom Moussa Doumbouya ñoom yëpp jaar nañ fi definitely ak yeneen a yeneen xale yoo xam ne fii leen njëkk a béy ko be mooy ñoom Boy Diallo Moustapha Camara ñoom gañ understand nga ak ñoom Escova Essa ñu bëree bëri am na ñeneen ñoo xam ne sax mënu ma leen a recall waaw waaye jaar nañ fi definitely Lamine Cissé Okocha waaw ten la mooy teni team bi si xale yu njëkk a sol teni team bi si la bokk definitely moom Omar kii bokk nañ si xale yu njëkk a play si team bi waaw although ñooy morom waaye gars yi ñu jiitu si team bi gars yi ñu njëkk a bi jaboy e tamit fi la jaar waaw definitely really in fact right now ni ñu nekk ci newetaan bi only ngoyaan ko mag su weso ngoyaan ñoy wax yeb tesito yelen leen tesito dem na ay 28 to 29 yes newetaan definitely So buge compter tesito before tesito yodos lulu Halei yi fi nekk ni sax ken judu si time boobu leen parce que eti la lolu tonam bi ma ngi mën a fàttaliku tournament bubu len sens la won Fisco ko tek ñun ñoko win nga ñëwaat tournament ni Davis ali 90s ñoko win rastan nga lolu xale yu bëri eh, xale yi fi nekk ni yépp seen mag ñi sa judo ñiy ñi si team right now central rek la ko bon waaw waaw moy won MPV fi nii definitely mu tegoon en bi force year bi ñoo win second year bi ñu dem final lose ko mhm. 5 August la waaye nga mën a fàttaliku loolu digga la loolu moom digga la team bi struggle na past three years definitely xam nga rek am na yoo xam ne doo understand afa am yoo xam ne su ñii di téye fii ñii dañ di xaw a bañ loolu moo isi woon différence bi ñii dañoo gisee nii ñii gisee wu gisee na li su am na tuuti conflit bu fa amoon waaye yàlla dimbale ñu ñu dem si diggante gi les dan two years ñu solfaat ko ñëwaat together understand nga koñ bi yëpp ñëwaat together ñu ànda indiwaat team bi si position am secret bi mooy woon ñëpp a ngi ñëwoon together koñ bi yëpp a ñëwoon together waaw amul ñi jàpp fii ñi jàpp ñëpp a ñëwoon together xam nga suñ li ñoo wax rek mais mboolem mbooloo mooy doole su ñëpp ñëwee affaire daf day yomba ñun. waaw waaye dañ dem ba si digga waaw ñii gisee nii ñii gisee na li ñii door di sideline team bi loolu isil timbi, bi tolof tolof loolu isil tolof tolof yi timbi. bi waaye tàngoor ñu waat nañ tugeera ñi pang ñi pangi waat ak timbi. bi ñu ngi ñaan yàlla fi mu nekk nii team bi ñu waat tugeera ba mun a amaat suñ success buñ mënoon a am buñ mëntoon a am sax waaw tout bi mooy xam nga comme li ma laa si njëlbeen bi da nga gis ñi gisee ni ñi ñaka a gisee nii ñii dem bene tolootuñ fi benn di rouler team bi understand nga te understanduñ nit su ne dama foog nit su ci football at least ku nekk ci football mo gëna am jëriñ ku ci football understand nga team do ko jox ku amewut ku nekkut ci football waaw ñun liñ gëmon moy jox Omar ké team bi mënoon nako coach any level bu mu bëggoon ko team bi kenn du am problème waye gis gis nit ñi nekkuñ ben li ma lay waral rek am na ñoo xam ne suñ ñi ñeneen ñi xalaatee nañ understand lu dafa isil tim bi problème lolu taxoon ñu am tolof tolof googu de dafa affect place yi mhm. waaw definitely lolu mom diggagu leer nañ la mistake bu rëy la won mistake bu rëy la won definitely li ma la wax rek Omar ki dafa dem be xalé yépp mom lañ xam mom lañ min correct 7 years Omar ki a coach tim bi tim bi amul ben tolof tolof Tim bi force wala second la jël si groupe wala tat du dee génn foofu le nga jéké jéki nga né da nga bëgg kop kop yàlla ko mé ñi fi win kop yépp dafa am log bi fa nekk ñu win kop kop do ko renforcer li gëna lifin li gëna am importance si lifin moy consistency ak stability si tim té te Omar kii bi mu fa nekkee amon lolu amon na si team bi wa waaye li ma la dee wax rek ñii gisee ni ñi di gisee na li lolo cause lolo moo mistake bobu len after at the end of the day ñepa ñepa accept ne mistake la wa te man bima ñuy ñëwee sax ba li ma def moy dama baye Omar ki Omar tirin tim man dama fa taxaw rek comme frame waxaat boy si la am rek ñu ak play system rek tek system ñu play lu rek la xam waaye Omar moy tirin timbi bi ba team bi qualifyat at la team bi demé te stil su nawetaan amon di siya tamit Omar kiye na e trina na timbi man dama nyuwa rek ase frame ko parce mo ko de dohal mo ma poussé ya. hmm. a definitely parce ko man décision boobu neexuma woon digga digga wa wulu ta bi ko so hole kon bi hale ya fi upa hale yi dañ buga football bañ nañ ko sabe every Friday dañ di organize maga xale lolu pur pour am Nah, united united ci koñ bi understand nga loolu tax ñu gëna a involve leen warga warga aljuma bobu leen ñu dem nak loolu dem nekkal lo xamne dafa consistant ñun xalé yi ne dañ bëgg play qualify rounds ñu lifin ñun ñëpp ñu jappa far ñu dem nak first match win ñu play four games win qualify koñ bi ñew ñëpp ñu wat together ñëpp contane ñu dem si nawetaan bi waye yalla def nak ñun tuti tuuti experience because xale yi dañ le woon loolu daf ñu cos bu baax a baax at least waroon nañu am experience striker ak midfielder yooyu leen ak defender waaye amuñ toon loolu leen loolu bokk na si lu ici suñu relegation far nawetaan qualifier wàcca amut last year dañ laagoon finissa finissa bu mel ni comme Modou Boy great, suñ pass nawetaan yu passé yëpp moom ñaan ñoo di score ay five goals six goals pour team ñu tok last year amuñ ko be knockout stage lañ ko doga am ñu ñew beena fa lañ em lu daf ñu sonal torop cause da nga gis ne dañu player team dominate la waye duñ debu nas ko waaw team yiñ player lepp dañ leena dominate waye duñ debu nas ko loolu daf ñu kos ko di waxee man mom anyway dinañ ñaan lu nak, kos jakar daf ñu jégué et paré am imam understand nga imam ak ñu tim ñi ngi imam obviously suñu dem play war nañu war nañu dem ci imam mu ñaanal ñu digal ñu ñu génnee sarax ñu génnee sarax comme niko ko tim si de def lolu mom efri maaj dañ ko def ba dëgg ne bala ñu ñoo ci si kër gi dinañ dem ci mom bala ñu dem suñu si pak bi dinañ wat ci mom lolu tim ci bako ko waaw nun la ko gay yi comme niko ko ñeneen ñi defee rek léegi-léegi nak nit mun am enem dem def ko waye du dé joggé ci halisi tim bi definitely Eh, comme ñeneen ñi ñu ko defee kenn ko ah, foog nga ñaanlu waaw ñaanlu nga def ko mustu way la rek loolu lay loolu njiri bi mustu way la rek definitely anyway man de fu ñee njiree du ma ko def fekkee moom wax dëgg waaye xam naa ne daal dem utee ji ñaan mun naa faa teewee la ko gars yi comme ni ñeneen ñi defee rek léegi-léegi nit mun na am enem dem def ko waaye du dee jógee ci xaalis si bi definitely eh, comme ñeneen ñi ko defee kenn ko ah, nga ñaanlu wa ñaan lu mom foog nga def ko musluwaay la rek loolu lay loolu lay turi njiri bi musluwaay la rek definitely in general pass let's say pass seven years tani Banjul dafa dafa hawa doy war definitely diga hut, biñ ibé Pak bi S sa nga gis football bu rafet si Pak bi definitely pare tan bi maa jiñ dee aj ay leen daf dee soofloo nawetaan bi understand nga liñ dee aj di aji daf dee bëri dem bi nga xam ne sax nawetaan bi du amati life nawetaan bi force mun ngaa seetaan force round bi ba mu jeex doo gis football bu ne su ñëwee si knockout stage nga doo nga gisaat football loolu daf dee sonal daf dee sonal nawetaan yi Banjul dëgga pare ñit ñi duñ dee seetaan lu tax ñit ñi duñ dee seetaan nag communauté bi ñoo war a ñëw duga ci team si waa team Tim mu si wax seen fan si ñu ñëwaat dekkilaat nawetaan jamono pig naa duus elmi night daf daan leef li soo duggee paagi paagi abdaay da nga daan kontaan waaye da nga dugga paagi abdaay pour gis nit sax problème la team bi sax ñim duñ ko si duñ xam sax ne team baa ngi play understand nga loolu loolu dafa rey loolu dafa bokk si lu gën a rey football yi Banjul Banjul divisional sax ñu duñ ko sax wa waa Banjul ci si isi wat motivation bi sax nit ñi di gëna di bena bena di setan ji way dafa dess comité bi war nañoo liggéey ci boor boobu len tamit wax dekk non dess na wa lag nañ trop ak place lag lag nañ ñoo team si cause dañ dé réro team si bu baax waaw sen légué légué décision si di fébo team si ba e pare legi léegi affaire yi daf dee nekkee benn bor comme niko gaay dé waxé di nga gis diw sangam ak si team committee bi am team nangam team bobu suñ ko waré penalize duñ ko penalize yenen team si lañu penalize lolu dafa bëri ci ñu tani banjut lolu passé ci dama ko yaga joy lolu daf ñu sona lolu dañ ko wara té ko feulé affaire yi indépendant transparent Wow, bayas, bayang sang bayas sang fa to be frank enough bayas sang fa mhm. waaw da nga koo gis sa si si sa team si player benen team tinggal gis nga am decision su baax waaye duñ la ko jox kenen ki am ko ñu jox ko ko mu leer na ne affaire yi am na ni si mu dara da nga jappa si yara rek ñib si waat Banjul wa Banjul time ñoom Dawda Bala na tous ma fenu 2006 waaw loolu daf loolu daf ñu sonal cause Banjul ba pare Banjul lañ dee teel a màgget loo player Gambia sax lay wax sax lañ dee teel a màgget loo ñëpp loolu dafa bokk si lu affect football yi Gambia déggantaan soo demee ay Ivory Coast wala ay Uganda suñ la wonee seen place yi doo dee understand sax waaye fii soo play benn five nawetaan bu teglante rek màgget toon nañ la loolu du noonu affaire yi demeewul noonu soo demee Sénégal bii rek xale du plein nawetaan loolu sampul ñun dañ dee teel a involve suñu xale yi ba pare la ñoo màgget loo suñ play ñaar ñetti maaj ñaar ñetti at yu correct rek def nañ la ma yow fi nga war a amee fi nga war a enjoy nawetaan pour dem divisional konka fa lañ la stop fa lañ la bàyyiloo nawetaan ñu affect moo tax suñ demee fële ndële si kombo gi da gis ñeneen dañ duñ téye duñ dañ ko bañ sax duñ plainte bi sonal nawetaan rek la ñu xaar pour journaliste ful ya ñu ngi ko tireen soo demee yow nga ñëw ici xale yu ndaw doo mun a maaj ñooñu doolee mun a maaj suñu àggee quota final rek dañoo toog semi final dañoo toog cos gars yi ñu dee gën a pare lii dafa sonal Banjul waaw mooy man su ma xalaat mooy liggéey nañ benn boor waaye benen bor bi ko sa fa dess du bëri fi net de ko kosoof lima la de wala rek yow committee bi amna yena decision ci si jël nga wara a team ci yeb waye da ngay de jël decision pare doga o team ci su amun njëriñ amna na amna na bena at dañ ñu ñoo la won ñoo doon fight 2004 2005 nawetaan fight amoon ñoo jiitu woon fight bi si biti la woon fële Mambay doon xee lu suñ lifin sax waaye loolu dafa ñëw bi nga xam ne afta dafa affect suñu match bi dañ stop match bi ñu war startaat suñu match bi ñu win ñu wan not ñu ñëwaat ba pare suspend ñu si kaw loolu fine ñu over ñaata thousand ñu dem ba am important game gars yi suñ play suñ fayul ban bi duñ play suñ game bi ñoo révélé son maa ngi ko fàttaliku Gambia High maa mujjee yóbbu xaalis bi si nongo te am na ñeneen ñi fi fayin doo de am na sax duñ ko defee ñeneen sax duñ ko defee waaye am na ñoo xam ne décision moom la li ma la wax si dafa war di laal ñëpp dafa laal ñi feeboo ñële du laal ñële understand nga Rule duy fiya decision si pour ñëpp la team si yëpp la waaw rule for all understand nga waaye li ma lay de wala rek loolu mo dee gëna a tax affaire yi dee gën team si parce que most of them duñ délifin duñ dé fiya yeneen team si paak bi liggéeyoon nañ ko correct na waye dañ ko sagané ba paak bi yahu so duggé si paak bi fi ne man ci biir paak bi sa dama fa dé rusa definitely paak bi seefut sa pour play si man suma gis gis man pour dama ne pour so liggéey paak bem ba dang ko wara garder warga warga gi dafa warga warga wi ndé play si pak bi dafa beuri paak bi duy noppalé ko paak bi ñun suñ bopa ñun wa banjul ñoko yahat niñ ko warona garder garder wuñ ko nonu né brika mangi ni ñu jëk am tof ñom seen tof ba gëna fan suñ tof bi kos ñom dañ ko garder ñun garder wuñ ko lima la wax rek so amé dara garder wu ko kenen amé bosam di ko garder obviously yo mu garder wul yaay jika a ñun la demee loolu daf ñu ñun ñun Banjul ñoo warona japp bolo, ti pat bi xamné li ñu ñëpp ko da nga gis ñi di ci play ñi di ci play ñi jël ko mom ko melni ñoko mom ko moom ko bu Banjul la waaw ñoo ko ñoo ko àkki moom loolooy dëgg waaw ah, yow tamit xam nga ni mu demee ah kañ kon soo demee si paak bi soo fa bëggee pli soo fa fekkee yenn type si doo pli waaw et pare comme ni ko am na ñoo xam ne sax dañoo ne am na ñuy fay am na xam ne duñ fay loolu nag moo fiyaawut definitely fiyaawut atoon am na ñi soo fay am na ñoo xam ne duñ fay loolu yàgg nañ koo dégg. lu yaga nañ ko diga amna yena newetan tim si laa la wax so amé test match So démé yo yay fay ñom duñ fay bëri na fi ak Banjul nga diga ñun xam nañ lépp. la si newetan bi dañ ko dañ ko dañ para para ya dafa dafa gaaw waaw dafi net li ni Banjul pass yes yeb lolu bokana na si lu ko gëna a newetan bi nim de wara démé du de démé nonu len dañ day yàkkamti nawetaan bi soro soro yeeg demal ay is sen game ci daf dee teggu ci yoon kon ñun dañ dee fast track su nawetaan bi nga ne li la ñun dañu jeexal sa ñeneen ya nga nekka imagine ñun ñu ñun ñu nakalati ñun ñu amé né ñoo ñoo amé xale nawetaani xale waaye ñun ñu dañ njëkk a jihal xam ne nawetaan du am competition competition du fi de nekka dang ko gis so buya setan ni wetan diga diga diga diga diga diga ne bala masi kadu bi gadem issa re gen suñu wetan bi ko sa de gisee real football dafa de dafa de dafa de moy li mo la wax rek ñu telo wat suñ telo wat suñ jindan def bu jika moy tek affaire yi ci yoon tim ci yeb man ko comité bi man ko tim ci ñëw décision si di dal ñep neka fi pour ñep understand lolu dafa di difin bi tani banju man jahal nama. jaxal na ma anyway bobu mom, dañ <laughs> ko déggee ni rek man su dé affaire xaalis mom duma ko mëna a parce que fiñ daan jaar ben wétan am suñ fa jaaraté nawetaan mu na am wa diga neexee dañ daan uti sponsors duñ mën sponsor yi su dee paak bi la moom paak bi moom baaxul pour plein nawetaan su dee Gambia xay la tamit Gambia xay nit ñi duñ fa mën a plein nawetaan wax dëgg ne yàlla ñoom suñ dañ waroon bañ ne dañoo tëj paak dañoo liggéey paak yi dañ waroon a liggéey paak yi ñaata moon dañ fi wax ne dañoo tëj paak yi dañ ko liggéey ba léegi liggéeyaguñ ko paak yi moom li ñu si wax moom paak yi moom liggéeyuñ ko de def fi net de ah suñ ko jëlee woon si noonu sax it na doon <laughs> am excuse waaye comme li ma ay amuñ xaalis non loolu moom mënut a nekk loolu waaw man xëy na waaw suñ ñëwee si affaire yi amuñ paak bi naa mun a understand lu leen waaye xaalis amul ana sponsor laa si ana sponsor laa si yaay am na yenn teams yoo xam ne nag seen teams yi nañ leen mun a maintain seen players nañ leen mun a maintain kon li ma bu am na seen team comme ñun suñ team bi te surtout ñun ay xale yoo ay xale yu ndaw lañ am xale yi si koñ bi leen dëkka xalé yoy suñ leen oyé sa yu leen dañ leen jëli ji waaw mun naa sa wax bi wédiwuma ko waye pour ñun duñu affect because ñun ñi fi ñi play si bi tri ko si koñ gi leen dika sa yoy leen soxlé sa yoy éwo di ngi leen gis ya ñoo ma dina affect Banjul nak parce que amna na ti place yi duñ duñ ñu dem play cause min am du melni timi combo yi most of them ñu def joxe halis am nga yenn place yi di ko faar am na ñoo amuñ liggéey soo ñëwee ne leen dama place suñ la joxee benn 2000 wala 2005 doo ko fa bàyyi foog nga dem ji ko noonu la demee non ñun comme li ma la wax ñun suñ place yi ku bugg a dem xale comme suñ xale yi ku bugg soo ñëwee suñu mun nañ la advice mun nañ laa jox good advice su la mun nañ laa bàyyi nga dem am na ñoo xam ne su la wu dañ laa ne nga toog understand nga ko salis bi du dara ci football bi 2000 moom laay xaar am na ñu amna am amna ñu am na ñoo xam daf leen arrangé amna na xamne du leen arrangé nga tok mo gën ko soo demee yàlla téré tere ko nga dem jitt ki féra la nga dem lu war mun nga fan sami problème ko jitu rek seytaane mun na cee tegu sakatuma loolu nawetaan yi nii suñ la joxee xaalis du yomba da nga waram pour play pour team bi waaw anyway teams yu bëri dina leen affect parce que wàññi nga tim teams yi already def nga sen hel ne nawetaan du amaat ben génnee ci gen génnee loolu hel ga nga war rek oote waat ne nawetaan dafa am damay ngelen amna am na ñu bëri ñu doon war a pour dem uti fonds pour garder sen bi munatuñ ko passé na su teams yu bëri dang leena wañi lolu su team su comité bi defé lolu len dañu isil tim su bari problème amna ñu ko dul yëg na way amna ño xamné dañ ko yëg fix waaw Banjul légui problème bi moy ndoy nañ dem suñu wacce dem traîner si tim si mon lu lay advice ndoy Banjul da daa dan bay grand place bi ni tok bu bari yi dafa loolu dafa suñu gëna wañi xalé yu bari amuñ lu ñoo def dafa bari si xalé fi fii man su ma ma advice xale dal moy xalé yi dem nañ jima try suñ di dem school suñ wacce school dem déposi seen boppa dem déposi seen boppa si team si di train si divisional si di train at least bu gene ka better player football ak train anda ànda understand fi fii duñ train be pare nañ bu a ka player mu daf ñu pare wàññi garam place bu bëri bi baaxut si ngeen demee xale Banjul bu baax a baax li ma laa wax rek ñàkk a jàng gi xale yi fa ngi toppa ne ay vu yi nii loolu dafa bokk si lu wàññi Banjul loolu luñ war a bàyyi xel la luñ war a bàyyi xel la luñ war a bàyyi la bokk si bokk si bokk si bu baax a baax si definitely mooy li ma wax rek dañ war grand place because tamit xale grand place nyarel foo toog vu boo kena su punrek, na rek mun naa influence xale moromam yëpp lu bokk na si loo xam ñun time ñun suñ time soo dee pon doo dee toog suñ biir wa dañ la dee isolé dafa rek influence full vu ñëpp door di tu te anda. So so dore di tu doo dee tal sa bopp yu dafa dee wàññi dafa dee nasaxloo te xale yi ma gis ñuy puunantu ñi yëpp mu sof dem amuñ lu ñoo def daf ñu sonal daf ñu sonal bu baax a baax waaw yi ñaaxaat parents yi rek ñuy wax seen doom yi bu baax a baax baax a baax parce que foog ñu wax xale yi xale yi soo leen bàyyee dañoo dañoo dem dañoo dem yaaxu si bi nga wax xale xale si kër yi lañ leen war a yare soo leen yarewu si kër yi suñ génnee dañoo gën a yaaxu kon suñ li ñoo fekki si biti dafa doy waar definitely programme bi interesting na trop li waaye maa ngi ñaxaat gars yi tesito yi most of them ñi bi ak ñoo xam ne seen su leen team bi soxlee seen loxo ñuy jéem a try di ñëw fii leen lu bon bon fii leen bokka bokuñ fenen fudut munuñ ta dem fenen be bokafa amuñ fenen fudut fi su su timbi soxle su len timbi soxle suñ len ooyee nañ jima tray try di ñew di mita timbi at least ko sen ay raka sen ay jarbaata fi nekk di play understand nga koñ bi noonu lañ ko xamé won dimbalé wonte ñi mag dañ dan dimbalé sen rakay ñi sen rakay respect ñi fi nekk mag ñi so li ma wax moy koñ bi nañ jima tray ñu wat together team bi mëna wat si right direction wa program bi interested ah. na li ma leen wax moy nañ ci farlu bu baax a baax parce que li du daan am banjul suñ togué li di am banjul dafa gëna é e halé gina rek gëna é e wa banjul tamit suralé lu len suñ la oyé pour nga ñu ama ñom programme ñu wal amo ñom programme da nga yoka dafa tax ñi xamutoon xam Understand? So mangé ñaax mangé ñaax most of them mangé ñaax most of them ñu jëma try di bay help program bi bu baaxa baax bu interesting la definitely hmm. ma way Mamadou la tuda Mamadou Kone ah waaye lañ ma oyé Banjul mom Kone ma rek la la rasta naa ma asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo seetaan fii si Sahel Network TV ku bàyyi xel ne ñu ngi loon doon wax ne fan la passé nawetaan tiim si la ñoo àndal si Word on the Street muy waxtaani mbéera bi tey ñu ngi woon fii nii si Téesitoo fi nga xam ne mooy Lasuwaaf ñëpp xamee ko si Lasuwaaf biir Banjul fii nii mu nekk centre bi nga xam ne diggi Banjul fii nii la mooy Lasuwaaf mboolem ko xam ne yaa ngi seetaan programme bi maa ngi laa ñaax nga seetaan Word on the waxtaani mbéera bi fan nga ko mun a amee. mooy Sahel Network TV tey ñu ñëwoon fan fii ni si Lasuwaaf ni Téesitoo koo xam ne nama nga Banjul rek comme ni ma ko baaxee di ko waxee rek koo xam ne na nama nga Banjul bugga ngaa gis sa voo yi subscribal on Sahel Network TV nga mun a seetaan programme bi nii di word on the street muy waxtaani mbéeda bi comme niñ ko baaxee di ko defee rek dinañ seeti voo yi yëpp voo yi yëpp maa ngi leen ñaan nañ pare ak nawetaan team si nañ pare fan ngeen ko mun a amee muy word on muy waxtaani mbeeda bi fii si Sahel Network TV ñu jox leen dig daje dem ba beneen yoon jërë ngeen jëf mbokk yi